ñoo gën a lam de julbeere yi ñooro roy makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy almaami abdu buukar mbokki daarul muxti ak dëkk yi ko wër xéewal egsi na ci seeni buntu kër yéen ñi am ay chantier fu mu mën a nekk wala ngeen am kër te am jafe-jafe fu ngeen def am ndox màggal gaa ngi jub si yéen a ngi am gan wala ngeen dëkkee fu sori lool te am fu ngeen denc ndox jafe leen lool wax leen alhamdulillah seeni jafe-jafe daal di nay tàggook yéen ngir indil nañ leen ay bâche à eau di ay bâche yu am lool qualité dëgër lool te mën a def ndox baas yoo xam sur mesure la am na baas yuy jël cinq mille litres ba soixante mille litres waaw waaw mille litres laa wax cinq mille dix mil quinze mille vingt mille ba soixante mille litres quantité bu ngeen bëgg a stocké ci wàllu ndox rek am nañu bâche bu ñu toll bâche cinq mille litres di bâche boo xam ni dina jël juróomi mbànd di mbàndi ndox yi ñuy jaayee ndox mu neex wala bu dix mille litres di jël fukki mbànd bu quinze mille litre di jël fukki mbànd ak juróom wala bu vingt mille litres di jël ñaar fukki mbànd am na ba soixante mille litre di maanam buy jël juróom benn fukki mbànd képp koo xamante ni soxla nga ci bâche yooyu am lool qualité te dëgër lool mën a def ndox ba saa soo ko soxla nga am sa chantier fu mu mën a ne wala nga am sa kër amoo bassin te bëgg fooy denc dox xéwal gaa ngi nii yow lañ ko indil ah, boo bëggee ci bandi yooyu mën ngaa jokkoo ko bàyyi son yi bu jokko rajo Daarul Mufti FM ci 77 654 77 51 77 654 77 51 muy ay basse à di ay basse yu am qualité lool dëgër te mën a denc ndox li ko dalee 5000 litres ba 60000 litres lépp jàppandi na ci Daarul Mufti jamono ji mën ngeen a jokkoo ak bàyyi son yi bu jóob di ngeen ci am ay leeral kon mbokk yi xéwal gàngoo ko egsi na fii ci Daarul Muxti mbokk yi safoo seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV am nañu mbégte lool dellu siwaat di àddu ngeen di nu teewlu ba léegi rekk noo ngi kajoor ndax àndoon na ma ak ci li xewoon Kajoor ginnaaw damel Birima Ngóone Latiir te Faidherbe jëf ca la mu ca jëf bi ma fi mujj indiloon naa leen ab laaj ndax Faidherbe daraam war naa desati Sénégal ba ko jiitu nag ñoom tubaab yi dañoo dóoral dammel ma koddu ndax juróom-ñeenteelu pàcc ba ñu nga cee wax ni dammel ma koddu dafa signé traité ba ñu jox ko xaalis mu génn ca la mu si ñëwoon ba loolu moo waraloon xareb jàtti ba kon day baax nu dellu si ci ay leeral diggante Damel Makoddu ak ba ba ci xeex bi nga xamante ni moo doon xareb jàtti nga xam ni gannaaw ba ca la bàyyi kajoor dellu Saalum fa ay nijaayam nekk ñu fal maajooju dëgën kon dina ci ñëw dina ñu ñëw ci ay pàcc ngir tuuma jooju ñu teg Damel Makoddu wax rek nii dafa signé traité ñu jox ko xaalis mu génn ca kon doolante boobu nga xamante ni bii moom la Faidherbe bu doon wax ba ne dañoo jox xaalis Damel Makoddu nga xamante ni moo waral xareb jàtt bi amoon ci atum junne ak juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak benn 1861 déelante boobu muy traité bi Damel Makoddu daf caa jox tubaab yi lañu doon sàkku te mooy fu ñu tabax seen ñetti poste yooyu ak xàll woo xamante ni seen yaxantukat yi danañu fa man di jaar ci wetu booru géej gi bi nga xamante ni bii dameel ma koddu signé na ko ndekete ca biir traité ba ay ndëgg sërëx def caa nekk ndax ca traité ba dañoo wax ni <coughs> digg bi nga xamante ni bii mooy diggu kajoor ak ndar gi nga xamante ni maanaam li tubaab yi yilif digg wa ñoo ngi ko yóbbu fa ñuy wax winde burut li ak fa ñuy wax lak tanma ci penku nga xamante ni Kajoor léegi day ñàkk jandeer ak fa ñuy wuti xorom ci gànjool ñu di ko wax saline ci tubaab ndëgg sërëx yooyu nga xamante ni bii de euh, dëxëñ feder bu dëxëñ na ko ci dëlante bi muy traité bi jandeer ak fa ñuy wuti xorom ci gànjool wax na ni dameel jox na ko nga tubaab yi ca biir dëlante ba muy traité bi itam ñu ni dameel moo war a saytu kaaraange muy sécurité xàll yi nga xamante ni bii boo jógee Gorée jëm Ndar wala nga jógee Ndar jëm gore seen ñu ñuy yónni muy courrier yi ak tukkikat yi ak yaxantukatu tubaab yi muy commerçant yi dañu fay jaar ak ay soldaar sax loolu seen kaaraange dameel ma kodd moo ko war di ñu saytu ñu ni nag ngir loolu suuf soosu nga xamante ni jël nañ ko ci Kajoor loolu rek yemunu ci ndax Ginnaaw ba mu signé traité bi moom Damel Makoddu yónneewaat nañ ko aw këyit li tubaab di wax quitus xamal ko ni ko kat koppar yi yépp Kajoor yoral na ko gouverneur ndax dafa am ceddo yoo xamante ni dañoo daloon ci kaw yaxantukat yu tubaab ay commerçant lël seeni alal loole nag dañu leen di teg ay daan yoo xamante ni dammee la ko war a fay ñu ni ko daan yi nag ñetti fasi naaru góor lay doon ñaari junni lay muy dix mille francs yoo xamante ni xaalis lay doon wala marchandise moom fedeer bu jekku na kajoor ndax barab yi nga xamante ni ñoo ëpp koom ci Kajoor fexe na ba lii dammeel ma koddu siñante ak moom mu dëxëñ ko ca biir wane ni lii dammeel ma koddu ànd na ci ndax dañoo signé ba noppi mu yokk ca loolu wala daaka trop mu interprète bi nga xamante ni xañ na mooy dawalal dammeel moo koy liiral li ci traité bi da ko leeralul woon loole ndax loolu nga xam ne ay daan la mu ñetti fasi naaru góor yooyu ak dix mille francs loo xam ne xaalis lay doon ak marchandise moom feder bu ci barab yi ëppoonum koom ci suufu Kajoor dëxëñ na ko ci li Dameel jox na ko tubaab yi postu Mbéjéem ak Mbooro ak Lompul ñetti post yooyu moom lañu siiwaloon ma waxoon ni Dameel Birima Ngóone Latiir siñaaloon na ko faleer ko te loola wérut woon ndekete la mu doon wax ni dafa bëgg suñu tabax ay pos ma nga ca doon sóoraale ni ay barab bu nu fa nekkee not kajoor bu bëjoo amee day yomb ci noonu lool saa bu ñu demee ba xeex doxati suñu diggante kajoor te fekk noo ngi ci barab yooyu day yomb lool ci noonu nga xamante ni bii li ñu jël ci suufus kajoor bokk na ci li tafu ci géej gi te mu yittee leen leen lool nga xamante ni bii daal mën nañoo wax ni Faidherbe bu li gënoon ci Kajoor jël na ko ci biir traité boobu daanaka léegi yilif na Kajoor ak Damel sax ak waa Kajoor léegi nag laaj bi mooy Damel ma doon bañ nan la mën a xatimante maanaam si nga wax ni ànd na ci lii moom mi nga xamante ni bii xamaloon na leen ni leen ab dëpp néeg sax duma leen ko bàyyee ci suufus kajoor bi nga xamante ni sama suufus maama ba taxoon mu ni leen seen poste yi ngeen bëgg muy ñetti poste yooyu ak xàll yu ngeen bëgg seen yaxantukat yi di fi jaay sax da koo bañoon kon ma kodd benn li mu signé moom jàppoon na ni rek mooy ñetti poste yi ñu bëggoon ngir ligne télégraphique bi jaar fi ligne télégraphique bi ak xàll yi nga xamante ni bii moom lañu waxoon ni dañoo bëgg yaxantukat yi di fa jaay moo tax ba mu ko signé ba noppi nag ñu dog koo leeral li nekk ci biir trait bi te mooy barab yi gënoon ëppoonum koom ci kajoor ñu ni dammeel jox na ko tubaab yi moo tax nag bañ ko ko indilee leeralal ko ko ni ko lii lépp kajoor ñàkk na ko ndax yaa ko signé ci la daal di yónnee ci fetar bu ni ko man kat li mënu nungul te moo doon traité ba mooy ñetti poste yooyu di poste télégraphique ak xàll woowu nga xamante ni bii yaxantukat yi tubaab yi danañ fa mën a jaar ci wetu géej gi loolu laa bindanteeg yow de loolu laa siñante ak yow waaye leneen li nga dëxëñ ci biir lépp nunguwuma ko jamono yooyu ma ko du gis na ni xare moom baaxul ci ki bom ak kañu bom yépp waaye nag nee ko li nga xamante ni bii moom laay nangu daal mooy lam ma joxe mooy fu ngeen tabax seen ñetti poste yooyu ak xàll woowu nga doon sàkk waaye leneen liñ ci dugal lépp nanguwuma ko ma la xamal nag ne la bi maa ko moom waaye duma ko joxe kon lii ngeen ci xëppati yépp muy sos xoromus gànjool si nekk ak yi ci des yépp maa moom kajoor maa ko yilif te joxewuma ko yow daal li nga xamante ni bii moom laa la nungul mooy la nga doon waxante ak sama doom damel Birima Ngóone Latiir kon leneen loo ci bëgg a yokk duma ko nangu li nga bëgg su fi fekkoon sama doom ci di damel Birima Ngóone Latiir du ko nungu sama doom jee nga xamante ni bii mooy Ibrahima te nekk ca Saalum muy Sàmba Lawbe Lat Sukk Sira Jogob Sàmba Lawbe Lat Sukk Sira Jogob du doon moom it du ko nangu xalaatuñ ko sax li nga xamante ni nungul naa la ko muy ñetti poste yooyu ak xàll yu sax bëgg jàmm rek moo tax su fekkente ni nag loolu ñu waxante woon muy ñetti yi ak xàll yi moom nungul naa la ko waaye boo ci bëggee dugal leneen na la wóor ni lettre bi ma la bind mooy lettre bi mujj bàyyi ko ci man jëm si ci yow su fekkente ni loolu bëggoo ci nag jekk naa maa ngi lay xaar kon Faidherbe def na yëfi naafeq def nay tappale ndax lamu mu wax la doon waxante ak damel Birima Ngone Latyr moo doon ñetti poste yu bëggoon ak aw xàll te mu waxoon ni signé na ko ak moom te signé wu ko bàyyam bii ko wutu di ma ko du bëgg jàmm ak gis ni kajoor ñi ci ëpp war nañ ko gannaaw moo tax mu nungoo signé loolu nga xamante ni bii bu bëggoon na ko waaye ca biir Il muy traité ba moom bu moo tànn la neex la gën ci muy arrangé lépp mu dëxëñ ko ci biir ndax boo xasee am ab signature ba noppi jamono yooyu pour nga yokk ci ajouter ci loo bëgg dafay yomb waaye bi mu leeree dameel ma koddu nee ko la nga waxante woon ak dameel Birima Ngóone Latiir muy ñetti poste yi ak xàll wa loolu moom signal naa la ko waaye soo ci bëggee yokk leneen nag man maa ngi lay xaar jekk naa na la wóor ni nag leetar bii mooy leetar bi mujj a bàyyi ko ci man jëm si ci yow feder mbokk yi kon liñ mayoon ci ay simili mat na kon dañuy ziyaare bokk yi rek te dañ koy mujje muy ñu nekk ci kippaango yi kippaango sàmm sunu mbati Ablaye Cissé ak ñam fa nekkal cosaanu senegaal Baye Cheikh Gueye ak ñam fa nekkal support xam sa réew ci Amérique sëñ Ahmadou Bamba Mbeng sëñ Basirou Fall ak ñañu fa nekkal waaye fàttewunu kippaango gi nekk ci Facebook bi muy ñiy safoo xam sam réew TV te bokk yu bari di sàkku fi ñu toll ñu ngi ciy dugal képp ku ko sàkku rek ñu dugal la ci kippaango gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ziyaara Serigne Abdoul Aziz Touré xalifa sëriñ Adi Touré waaye fàtte woon itam sunu doom Maodo Diop kon ngi mooy pàcc bu njëkk bi. ci leeral gi nga xamante ni bii dox na ci diggante Faidherbe ak Makoddu ba warloon xareb jàtti ba ci ay wor ak ay tappale yoo xamante ni moom gouverneur Faidherbe jàppoon na ni dana ko mën a def def ay pexe gannaaw ba mu fexee ba dameel signé kon mbokk yi topp leen rek ba xam dammeel na koddu fan lay mujj ak ki nga xamante ni bii mooy gouverneur Faidherbe ba xeex dox seen diggante muy xareb jàtti kon nga di leen dox di dig daje rek ci ñaareelu pàcc bi di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf mbokki daarul muxti ak dëkk yi ko wër xéewal egsi na ci seeni buntu kër yéen ñi am ay sànce fu mu mën a nekk wala ngeen am kër te am jafe-jafe fu ngeen def am ndox màggal gaa ngi jub si yéen a ngi am gan wala ngeen dëkkee fu sori lool te am fu ngeen denc ndox jafe leen lool wax leen alhamdulillah seeni jafe-jafe daal di nay tàggook yéen ngir indil nañ leen ay basse à eau di ay basse yu am lool qualité dëgër lool te mën a def ndox bâche yoo xam sur mesure am na bâche yuy jël cinq mille ba soixante mille litres waaw waaw soixante mille litres laa wax cinq mille dix mille quinze mille vingt mille ba soixante mille litres quantité bu ngeen bëgg a ci wàllu ndox rek am nañ baas bu ni toll baas cinq mille litre di baas boo xam ni dina jël juróomi mbànd di mbàndi ndox yi ñuy jaayee ndox mu neex wala bu dix mille litres di jël fukki mbànd bu quinze mille litres di jël fukki mbànd ak juróom wala bu vingt mille litres di jël ñaar fukki mbànd am na ba soixante mille litres di maanaam buy jël juróom benn fukki mbànn képp koo xamante ni soxla nga ci baas yooyu am lool qualité te dëgër lool mën a def ndox ba saa soo ko soxla nga am sa chantier fu mu mën a ne wala nga am sa kër amoo bassin te bëgg fooy denc ndox xéwal gaa ngi nii yow lañ ko indil boo bëggee ci bànd yooyu mën ngaa jóg ko bàyyi soxna bu jóg rajo Daarul Mufti FM ci 77 654 77 51 77 654 77 51 muy ay basse à eau di ay baas yu am qualité loola dëgër te mën a denc ndox li ko dalee cinq mille litres ba soixante mille litres lépp jàppandi na ci Daarul Muxti jamono ji mën ngeen a jokkook Baye Soy bu Jóob di ngeen ci am ay leeral kon mbokk yi xéwal gàngoo ko egsi na fii ci Daarul Muxti waaye Faransé na gooru Sénégal ñi tëral Sénégal ñi génn gàddaay far dem faatu ñi joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñi lekke imbulaañse def ko ci biir ma faraañse ñoo génn lam de julbeere yi ñooro